gis waaw li ma sant mooy li ma daan sant rek saa yi ma fi ñëwee ndeysaan yërëm leen am ci ñoom xol bu tooy lool ba nga xam ni saa yi ma génnee campénal damay dem see bëgg a bëgg autorité yi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñoom ñoo leen war a jàppale. parce que ay jigéen lañu ay yaay lañ surtout ci weeru koor bi ku nekk xam na ne jigéen moo war a gérer këram jigéen moo war a taxaw jëkkëram moo war a taxaw njabootam ndog yi dem marché bi xam nga donc ñoom bu ñëwee tey fekk leen fii vraiment dañuy am xol bu tooy xol bu naqari waaw ah, comme dab rek comme ça une wax mais jooyu ma. Uh-huh. nan la ñu waaw euh, defe naa ni réseaux sociaux yi léegi boo xoolee euh, waa Camp Pénal ñii leen di seet si ñu fa. télé aussi boo xoolee ñu ngi fa. Euh, Liberté 6 defe naa ni kenn du ko wan kenn. ci deux voies yi fa la Camp Pénal nekk ah donc ñuy woo ñëpp rek ñuy wax leen ñu leen di wax leen ñu leen di bàyyi xel à chaque fois. parce que ñoom tamit ci société bi la ñu bokk dégg nga te fii bon taxul nga dugg fii baax aussi taxul nga dugg fii nattu yàlla mooy tax nga dugg fii ñun ñu nekk ci biti suñu mbaax taxul ñu ne nekk euh, ñu nekk ci biti ñoom tamit bon dëggoon leen fi waa destin la rek te ñu ñaan yàlla ñu génn ñoom ñëpp laa korité incha allah merci beaucoup